nabu lay la nabu lay ba dama laa génnee àdduna ba ñu ko dénkee micro yi lii la wax mais Aziz dee na lan la lan la Aziz dee na fii ñëppay de lii la nabu lay tontu journaliste yi seetaan leen ko bu baax ngeen def seen jàngat ñiy wax aadama man samay information dafa pertinent du ma wax di waray mais ku ma jàppalu rek xamal na yow bokk nga ci indi si parce que li may li may xool dafa yenu maanaa man damaa xam li yàlla wax information li ci yàlla wax in jaakum faasixun bi nabayin fatabayyanun waaw information day wóor bala nga koo tuumal nit ki man lépp lu ma wax xam naa ko bu ngeen demee suratu nisa aaya 93 yàlla ma ngi koy wax naan wa man yaqtul muminan mutaxaamidan fa jasaawu jahannama maanaam ñi nga xamante si nii képp koo xam ne dangaa rey nit te tey ko sax fay ëllëg yow mal xiyaam safara la te dañu lay rendi lépp lu may wax xam naa ko nabu lay war naa waxee nii déglu leen wax ji bu baax wasalaam xam naa li may def. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi waxoon naa leen léegi ne leen ah nabu lay ñu ngi ko doon dégluwaat enquête ba pare na nabu lay nee na ah Aziz Dabala ñoom ñaara àndoon ci ay cant. cant gi nu àndoon ñaay Ndiaye Tyson moo ko organisé woon Ndeye Ndiaye Tyson nag moo nekk nii ma affiché man kay koy en même temps moom di personne laaj ko coow la nu mu demee parce que lépp complot la fa la histoire ba commencé fala la na bu lay ànd ak ki nga xam ne moom mooy Aziz Dabala jël taxi daal di ko yóbbu waaw Naboo ko yóbbu hôpital wax na ko Naboo togg añ bi wax na ko te foog naa loolu lépp du ndax waxoon naa leen ko waxoon naa leen moo togg añ bi waxoon naa leen moo ko yóbbu hôpital waaw cant gi rek la ci dolli ke ñoo àndoon ay cant ah Ndeye Ndiaye Tyson moo organisé woon cant yi bandi de gang ba xam naa foofu la leen war a toppe pour dem li nga xam ne moom mooy kër ñoom Aziz Dabala léegi nag maa ngi contacter Ndeye Ndiaye euh, Tyson moo nekk nii ma affiché ngeen amaat ay leeral yu bees naka la cant gi demee kañ leen fa ñëw lépp laa leen di toppal wasalaam